ko doon demal banu fi te soxna see doy ko damaa jabar ak jooju loom damaa waar danaa ko doon dem danaa ko doon demal banu fi soxna see doy jabar ak jooju loom damaa waar danaa ko doon demal ndax waxtu wi ku ne xam na ne léegi takkusaan jot kon nag li ngeen waxoon ci diggante seeni borom kër ak diggante ak njaboot gi ni ñu war a def ci seeni kilifa kon lu nuy wax dañ koy wax rek mu jëm ci mu jëm ci loolu su ko defee mu bañ a yàgg bañ a mën a gudd ndax fi ma ko bëggoon tàmbalee su ma ko fi tàmbalee woon day mat ay waxtu ay waxtu yu waxtu yu bari lool waay kon loolu du fi xaj kon nag dañuy tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim jëlee nañ ci Saïd ibnu Abi Waqaas radiyallahu anhu samihtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom day dégg ci yonant bi sallallahu mu yaqulu innama imraatun kalafat kalafta sawjaha fawqa taaxatihi ila xasaba bi ila xasabaha laahu wa nasaara nee dégg na ci yonant bi salaa salaam moom Saïd ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu na yàlla dolli ngërëmam nee na dégg na toog na yonant bi salaa salaam wax ne amul jenn jigéen yoo xaye teg na boroom këram lu ëpp kàttanam lu ëpp lu man nga teg ko ko teg ko ay coono yoo xam ne mënu ko teg ko loo xaye mënu ko ndareedu suñ borom dana ko isaab boole koo yahood ak nasaraan ñi nga xaye dañoo wutal yàlla doom te mooy yahood ak nasaraan ñoo weddi yonent bi sallallahu alayhi wa kon teg sa borom kër loo xam ne attanu ko loolu yonent bi salaa salaam tere na ko waxaala abdoulaye ibnu amrin jële nañ ci abdoulaye ibnu amrin samihtu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne dégg na yonent bi salaa salaam wax ne ayama imraatun xabasat fi wajhi zawjiha ilaa jiyaat yowmal xiyaamati muswaddatul wajhi ilaa anta tuuba wa tarjahu jëpp jigéen joo xam ne ñëkkal nga ñëkkal nga sa xar kanam ci kanam sa borom kër maanaam ñaawal sa xar kanam ci sa borom kër wan ko ne ko damaa mer wala ñëkkal ka xarkanam bi daal ci sa kanam boroom kër nee na day bu yomal xiyaamee suñ borom day ñuulal sa kanam kanam yu kanam ga yàlla da koy wëlbati ñuulal ko ba ñu xam ne kii kat boroom këram nii la ko defaroon ca àddina ilaa an yatuuba ndare nag dafa tuub te delluwaat ci moom jéggal ko kon dana ko jéggal loola mu mucc ca waxaale Abdullah ibnu Mas'ud jëlee nañu ci abdoulaye ibnu mas'ud radiallahu anhu yàlla yàlla dool li ngërëmam samitu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam mu ne dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yaa laxanallaahu l masuufaati laxanallaahu l masuufaati ne yonent bi ne yàlla rëbb na masoofaat xiila wamaan masoofaat mu ne ko abdoulaye ibnu mas'ud ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulullahi lan mooy masoofaat luy ma faat ba nga ne yàlla rëbb na ma faat mu ne ko ma soo faat al ma soo faat xaala lati yadu xoos xaa sawjataha ilal firaasi fa tasawafo lahu wa tastaxilu anhu ataa taxlabul damumu nee na mooy jigéen ji nga xam ne borom këram da ko yittewoo woo ko ci ab lalam mu nekk fa di diig diigal di waaj di def lu ne ba borom kër ba ay nelaw far nat nag mu nelaw nee na kooku muy mosoo faat ne yowmal xayam xar kanamam du leer day ñuul kukk mu ne ko kooku mooy masuusaat waxaala abu hurayrata radiyallahu anhu jëlee nañ ci abu hurayrata yàlla na yàlla dolli ngërëmam samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayama imraatu nasarat fi wajhi sawjiha walam talxaq fa inaa laa taral jannata abadan ila anta tuuba wa tarjahu wa yarla anha sawjaha nee na abu hurayrata nee na jële na ci rasulullahi sallallahu alayhi wa amul jenn jigéen joo dana xool ca xarkanamu borom këram te réewul reexal ko ba xarkanam bi tàlli ci këram borom këram nareedu ja jigéen du gis àjjana laataral jànnata abadan ne du gis àjjana mukk ilaa anta tuuba nareedu dafa tuub nag delluwaat ci borom këram ba borom këram yërëm ko jéggal ko nañ ci góor góorgóorlu bu baax ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci diggante borom kër ak soxnaam waxaala suleymaanum lu faris jële nañ ci suleymaanum lu faris radiyallahu anhu samihtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dégg na ci yonentu bi yàlla ba yàlla na yàlla dolli ay xéewalam yaqulu ayyaba imraatun tutayyibu wa tasaynu wa taxruju min baytiha ilaa xarajat fii xarabillaahi wa saxtihi xataa tarjihu ilaa baytiha yonent bi salaa salaam Souleymane mi Afris Faris nee na dégg na salaa salaam wax ne amul jenn jigéen joo xaye dana waaj ci biir néegam defaru ba jekk dal di génn néegam daldi dem ndareedu mi ngi dox ci merum suñu boroom ak sànjab yàlla ba ba muy dellu siwaat ci merum yàlla rek lay dox ak ci sànjab suñu boroom. وخالا بلال بن امامته جيل نانتي بلال بلال بن امامته مو واخني يالنا يالا دولي يرمانديم من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه تصلي وتصوم بخير اسم زوجها الى كانت صلاتها وصيامها لزوجها وعليها الاسم نانا بيب جيجين جو خامني nee bepp jigen bo xamne mi ngi wor ak julli ci luddul digelal borom kërëm këram pay ga mu am ci julli ga ak pay ga muy am ci wor ga lepp borom kërëm lako yalla di sawi wom nak bakkar la ci jëlé mom kon def dara ci luddul digel ndigal bax bax def ko ci digel moy gën te it am lu mu ci wax la tafalo say bi khairil isli fal isu sartun fi khaboli shaani kuy jëf da lu ne da nga bëgg yalla nangu jëf jëf te jëf nag lay tax yalla nangu ko moy nga tek ko ci kaw ndigal kon kenn ku ne la ngay jëf nang ko jëf mu tege ci kaw ndigal wa yaqulu aylan sabihtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyama imraatun axlayta sawjaha la yaqbalu allah minha salatun wa siyaman ila an tatuba wa tarjihu neena batay mom tey na ci yonnati bi sallallahu Alaihi Wasallam, mu wax ne jigen jo xamne jep jigen jo xamne merlo nga merlo nga sa borom keur yalla dut nangu sak julli yalla du nangu sak sak sa kor ginaaw yi ner merlo nga sa borom keur ci wéru kor wi ku ci merlo sa borom keur yalla du nangu sak julli du nangu sa kor julli gam julli yek julli farata yek la nga cey def lepp yalla du ci nangu dara gannaaw dangaa merloo sa kon merloo sa borom kër dara jëru ko ila anta tuuba naree du dangaa tuub nag xam nga ne mer nga te yaa ko merloo nga dem tuubal ko ne ko gannaaw dama laa tuub merloo maa ngi lay jéggalu mu jéggal la su ko defee moom dara dootul la sa war waxaaloo abou darda yi jële nañu ci abou darda yi radiallahu anhu yàlla na yàlla dolli ngërëmam mu ne sabitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jële na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyama imraatun aftasat sawj sirru sawjiha ila falaha llahu al alqiyamati ala ruusi qalaq, wa fala fi dunia qabla al akhirati. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëpp jigéen joo nga sekarab sa borom kër sa borom nga siwal ab sekkareem nit ak borom këram la ñuy séq cib néeg la ñuy séq nga dem di ko waxtaaneeg sa yeneen moroomi jigen, di leen ko wax wax ngeen di def ah ku ko def day yàlla tëkku na la yàlla tëkku na la yonent bi salaa salaam tëkku na la te it nee na sa isaab fii ci àddina lañ koy tàmbalee bala ngaa dem alaaxira waaw ne ci àddina lañuy tàmbalee sa isaab bala ngaa dem alaaxira kon diggante ñaari way dencante mawaddatan wa rahmatan la kóolu téef moo fii am ci diggante bi bu ànd ak yërmande ak ak cofeel kon nag lay séq seen diggante kuy def foo toog ak say morom yu jigéen di ko nettali ak di ko wax loolu de lu ñaaw la lu yàlla bañ la lu yonent bañ la te ku baax képp nag lu ñooñu bañ bañ nga ko waxaala abu sayidul xudri radiallahu anhu yàlla na yàlla dolli yërmandeem samihtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ayama imraatun nasaxat siyaabaha fi xayri bayti zawjiha ila kaana wisrun jamihul mawta alayhi laa yaqbalu minha sarfan wala adlan ba tey jële nañu ci <clears throat> saxiidum nu xudre yu radiyallahu anhu yàlla yàlla dolli ngërëmam mu wax ne jële na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëpp jigéen joo xam ne summi nga say yére summi nga ci beneen néeg bu bokkut ak sa néeg boroom kër nee na day da am nga bàkkaarub mboolem ñi faatu ñëpp bàkkaar bu ñu am mboolem ñi faatu seet bàkkaar mu toll am nga bàkkaar bu na toll te yàlla du nangu ci yow farata du nangu ci yow sunna du la nangul dara lenn looy def yàlla nangul la ko amut kon loolu it war nañ cee góorgóorlu bu baax waxaal ab abbas ibnu abdul mutalib radiallahu anhu yàlla yàlla dolli yërmandeem samihtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu adlahat ala naari faraaytu aksara ahlaha nisaa yi wa ma salika ila man kasurat isyaanu hunna li aswaajihunna yonent bi sallallahu alayhi wa wax na mu dugg ci nopp abbas ibnu abdul muttalib mu ne amul yenn jigéen yonant bi nee na dafa xool dafa xool sawara yonent bi nee damaa xool sawara ma séen la ne ña nekk sawara la ca ëpp lépp di aw jigéen la nekk sawara la ca ëpp lépp di aw jigéen nee na ñu ne ko bu saalika ana loolu lu ko waral mu ne dañoo bari lu ñuy mooy seeni boroom kër ilaa kasratu xisyaanihunna li aswaajiha dañoo bari lu ñuy mooy seeni boroom kër kon mooy sa boroom kër gannaaw yonant bi nee na xool na àjjana gis jigéen ña gën a xool de sawara jigéen ña gën faa bari nee na kon nag la leen fa yóbbu mooy dañuy mooy seen boroomi kër kon jigéen na góorgóorlu ci boroom këram loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko wax li nuy teg ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa te ñu indi ko waxi sëriñ tubaa lañ ciy teg waxi sëñ tubaa moom lañu ci teg waxi sëñ tubaa ci dénkaane bi mu dénkoon soxna Penda Buyo soxna Penda Buyo kenn ku de xam na ne moo doon soxna sëñ Mbàkke Ibra sëñ Mbàkke Ibra sëñ Mbàkke Ibra xam nga ne moo ak sëñ Mamar Anta Sali ñoo bokk benn baay waaye moom la sëñ tubaa daan wax baay mooy sëñ Mbàkke Kajoor kon soxnaam sama yoron muy soxna Penda Buyo le seigne touba defal dénk bi muy dénk bo xamni ñëpp man nañ ci jëriñu kon suñu joge ci denkane bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam denkane bi seigne touba lañ ci wax mu jëm rek ci jigéen xaala taalibullaahi wa rasul araji minhum arda wal qabul yusi muridatahu sawjatahu xammihi penda ju penda jo allah lana wa laha وما أنا وانها كل سن بنوع أمين يا رب العالمين Sering kawan, dirci bambai dan sëyin jàmbaati moo waral moom xaatim moo xam ñi ci def seen alal wala ñi ci def seen xalaat wala ñi ci def seen doole sëriñ bi nee na mi ngi leen sant ndax ni ngeen ko defee ci bis bi di ko defee ci pénc mii fépp foo xam ne ña ngi fay yëkkati diine wala di fa liggéeyal Serigne Touba noona ngeen di yëkkate seenu ñaq waaxu ba egg ca ñooñu bokk kook ñoom ca nee na bu ngeen fa demee turu dëkk bi ngeen fa demee turam ngeen fa demee kon nee na mi ngi leen di sant ci loolu bu baax di leen ñaanal suñ borom gën leen a kàttanal gën leen a boole ci lépp loo xam ne da ngeen di ànd ngir liggéeyal suñ borom gën leen a ànd boole ci lépp lu ngeen xam ne dangeen koy taxawal ngir liggéeyal Serigne Touba. loola nag mooy taxawaay bi ab jullit war a taxaw ndax taawunu alal birri wa taqwa lu ñu suñ borom santoon na ngeen ni dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla lu baax nag lii ci la bokk ragal yàlla lii ci la bokk kon nee na yéen ci yoonu mi ngi leen di sant bu baax waaye di sant mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ànd koog yéen buñ ci tuddee soxna maam sa Mbàkke mi ngeen wax léegi ak soxna aji Buso ak mbooleem ñi fi nekkoon sant nañ bu sant nañ ñëpp. di sant Serigne Cheikh Abdou Mbacke bala ma ne ñaari Cheikh Abdou yi muy Serigne Cheikh Abdou Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman ak Serigne Cheikh Abdou Mbacke moom Serigne Modou Astou ak suñ mbokki mbusoobe yi nga xam ne teewoon nañ fi ci njiital Serigne Thierno Bousso sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp. di sant ba tey njabootu Serigne Moustapha Kayaan gi nga xam ne ñoom ñun ñoom ñoo yem ci moom ak njabootam lañ. di fàttaliku seen waajur wu baax woowa ca bëggoon lu baax lool fépp foo xam ne daanañ fa def lu baax boo fa demee daje fa ak moom kon nag yàlla na ko sëñ Tuubaa teeru ca àjjana ya kawe ca njabootam gi mu fi bàyyi suñ borom teg ci loxo waaye di sant sëriñ Mbay Ngiraan mii nga xam ne moo doon def waxtaan wi ci waxtaan wu am solo wii nga xam ne def na ko ñun ñëpp ñu diglu ko waaye nag ginnaaw bu ñu amee nopp yu mën a diglu yàlla nañu am xol bu mën a taataan am cër yu mën a jëfe ñu fi doon waxtaan ndax waxtaan loo ko amal solo kii wax dafa bëgg li muy wax nit ñi dégg ko suñ ko déggee taataan ko ca jariñoo ko kon nag yàlla nañ jariñoo li mu doon waxtaan mbooleem dénkaane yi mu fi dénkaane wala ay xissa yoo xam ne nettali na ko fi ci gaa yu baax yu weesu woon nañ xam ne loola ñooña du ñuy malaaka du ñuy jinne ay nit lañ nit nag buñ la nettali ab sa ci moom dañoo bëgg nga roy ko jéem ko caa def sëriñ Saliou Mbacke danaa wax ne roy ku baax taxul nga mel ne moom waaye da nga raw say moroom kon nag saa ñu la nettali lu baax boo ko déggee da nga koy fas yéenee roy sëriñ Mbay yàlla na suñ borom guddal saw fan yàggal sab taxawaay ca li ngay wut muy ngërëmal sëriñ Tuubaa yàlla na nga dajeek moom yàlla na sëriñ bi dolli sab xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon benn nit bu gindeeku ci yow moo gën àdduna ak li ci biir ci yaakaar naa ay junniy junniy nit de gindeenu gindeeku nañ ci yow ci sab xam-xam kon nag yàlla gën a gën a suñ boroom gën a barkeel mu mel ne dañoo nekkoon ci jamono bu xat jàppoon nañ ndax ne waxtaan wii ngeen daa def da ngeen koo def farata comme ni koor gi doon a farata ak julli waaye nekkoon nañ ci jamono xat-xat yoo xam ne jàppoon ngeen ne du ngeen ko mën a def kon bu ngeen amee pas-pasu def ko loola mooy xam ne seenu dëggu ak góor góorgóorlu kon yàlla na suñ borom gën leen a dimbale réew mi nekkoon ci ab élection démb yàlla dogal am kuñ ku doon jeexal am keneen kuñ fal kon kii ñu fal yàlla na ko suñu borom jàppale mu doon ki gën ci réew mi ca yaakaar ji nga xam ne moom la Sénégalais yi am yàlla na wàccoog moom yàlla suñu suñ borom leeral ab xam-xamam dolli kàttanam dolli dooleem ba li nga xam ne moom lañ bëgg ci moom ngir Sénégal jëm ca kanam mu gën a waase suñ borom jaare ko ci moom ginnaaw loolu ñuy yëkkati ay kàddu yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna mbenn Sow ak njaboot gi mu àndal liggéey soxna mbenn nee na mi ngi sant mbooleem ñi fi teew ñëpp mi ngi sant mbooleem ñi ko jàppale waaye di sant nag mbokki jigéenam yi nga xam ne lépp lu man wala luñ mën a taxawal ñoom ñoo tax su ne duñ su ne leen guddi na ñu jug bu ne leen bëccëg na jug xooluñ naaj wu tàng xooluñ mu ngi taw xooluñ li mu def seen alal tamit lu mu leen ci laaj ñi joxe ko ngir jàpp nañ ne fam koy yóbbu moom lu leen di jariñ dong la kon soxna mbeen nee na doyloo gu ngeen ko doyloo jiital ko ci seen kanam nee na mi ngi leen di sant bu baax di ñaan seen taxawaay bii yàlla na gën a yàgg di ñaan lépp loo xam ne kuréel buy def lu baax dana ko am yàlla na ngeen ko am ndax kuréel moom ñaar rek rek ñaari kuréel rek am muy hisbullah ak hisbu saytaan ala inna hisballahi nag xumal muflihun suñ borom ne ne kuréel yàlla mooy ñi kon seen kuréel bi yàlla na ca kuréel yooyu bokk ci gëm nañ bu wér ne dana ca bok ndax nit ki mënul di jël taam di jël alal ak nim neexe temps nim neexe di ko def ci yoonu yàlla ba noppi di yaakaar ne per bu leen ko yaakaar mukk suñ borom dafa waxoon julli yi ne leen wala ta'inu fi ibtiqa'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjuna bu len doy di mukk adina kenn ku nopp am fi ñi ngeen fi bokkal dëkk ñuy ay yéefar ni ngeen di sonne noonu la ñuy sonne ca yéen yaakaar ngeen ëllëg loo xam ne yéen yaakaaruñ ko kon nag koo xam ne da ngaa war a defal àddina war a defal àllaaxira waroo noppalu nem ñi nga xam ne àdduna doo nga leen tax a jóg noppaluñ rawatina ku bëgg sa àdduna jàkk sa àllaaxira jàkk kon lu ngeen defoon na ngeen ko xeeb te góor-góor lu gën a dem ndax nit day def lépp lu mu jëf ca yàlla tax na ko fàtte ndax diggante bu gàtt lañuy dund fii ca diggante bu gàtt boobu dañ cee war a liggéeyal dund goo xam ne du jeex muy dunduk ëllëg ndax dunduk ëllëg lu jeex waaye fii nag day diggante bu gàtt boo xam ne dañ fee ñëw diggante bu yàgg ñu toog fi ca mënuñ dara toog bam yàgg ñi man dara ca buñ fa yàggee tuuti duutuñ man dara kon diggante boobu ñi man war fee liggéeyal dund bu dul jeex noppalu xaju fi laa raaxata fi dunya boroom xam-xam yi neen nooflaay amul ci àdduna ku bëgg a nooflaay yaa bëgg a solal sa bopp nit ñi tamit kenn mënta mucc ci ñoom waaye jublul yàlla mi nga xam ne moom soo manee xam na boo mënul xam na boo defee xam na boo deful xam na ca bañ a sóoraale nit ñi kon lii ngeen def na ngeen kon ne ca xam ne saytaane dana jéem a dugg ci seen biir ngir yàqal leen waaye bu leen ko ko may ndax seytaane kuréel bu mu fekk dalay tayaloo ne la ñii jëmuñ fenn bul dem bul dem ñii jëmuñ fenn bu la gàllankooree gàllankoor la mënulaa dem mun la comme yaa ngi dem jërul ngay joxe sa alal mënoo boole joxe temps ak joxe alal ko ci di joxe sa temps di joxe sa alal mu ne la nag kon yaa ngi joxe sa temps di joxe sa alal lu ñu woote nga dem dañ laa war a jox responsable da ngaa war a jiite yëf yi ndax yaa lu ñu woote yaa ci man yaay joxe alal yaay joxe temps yooyu yëpp nag ngir gàllankoor la waaye nag sëñ borom àjjana yi ëllëg mi ngi ko mi ko dig ñi nga xam ne dañuy def dara ca bëgguñ ci dara tilka daarul axira najaluhu lillazina laa yuriduna ulwan fil ardi wala fasadan wal xaqibatu lil muttaqin suñ borom ne na àjjana maa ngi ko defal ñi nga xam ne li mu ñuy def xooluñ ci lenn dañ koy def ngir yàlla rek ca ñooña rek ñoo amam mujj kon yàlla na suñ borom dimbale leen ngeen bokk ca ñooña ca gën leen a dëgëral gën leen a taxaw ba lii ngeen a xam ne yéen a ngi koy jéem muy seen alal ji ngeen def bu pénc mi wootee kenn mënu leen ci mbaar mii ngeen di toog di conférence kenn mënu leen ci jubaa ji kenn mënu leen ci lépp lu ñuy woote ngir yàlla kenn mënu leen ci loolu nag ku ca nekk luñ man lu soññ la gërëm la xam ne mooy yoon wa yàlla na suñ borom gën a dimbale ba ngeen gën a góorgóorlu ñu ngi jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ko doon demal jooju loom dama waar danaa ko doon lu fi dana ko jabar ak laaj jooju loom dama waar dana ko doon demar ba nu fi dana ko doon demar ba nu wee dama waar